la ñu waxaloon muumi rek mooy ko dund ci sutura jaaga kenn xamalu ko dara doo ko dégg ci détail doo ko dégg ci ay wax xoolal fi mu jaar ak fi doomam jaar ak fi boroom këram jaar nga xam ne doy na mu tiitaru suba ak ngoon bu dégg ba cëg mais mosoo ko dégg ci détail mm-hmm. mos naa dégg jaaga tontu jaaga boo ko gisee ci vidéo rek day wax ci Wally Seck mm-hmm. waxal Wally mbaaxam ah wala mu ñaanal doomam te nag Abdou yàlla moom moom jaab ñi mais at mii moom metti na ci ñoom at mii moom metti na ba fa metti metti metti metti yam parce que man démb rek ci aljuma ji damay tourner juste kër Thione Seck may déggante ak Mouhamed fekk doomam ñu am lu ñu doon wax biñ ma njëkkee tàggee déegi rek moom laa njëkk a waxal téléphone. mais ma gis yar bi may yox bés bu nekk ni Thione yare ay doomam mën nga am xam-xam ba jeexal téere te mënoo ko yoree sa njaboot may sentir tolérance bi nekk ci Mouhamed waxam dalam hmm, Mouhamed waaw euh, mënul ñàkk nit ñi yëpp. ndax sunu maam rek lañ doon xalaat mu yëg ko te te wax nañ ko ko mu yaayu jaaga mun ma wax nañ ko ko ñi si des mën nañ ko yëg ak yooyu wax ma ci yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni da nga xam ne ñii ay nit yu nu yar lanu mm-hmm. ay nit yu nu teral lanu waaye boo xoolee Abdou ci yonent bi fi mu jaar bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayam ci la ñàkk baayam mm-hmm. bi mu amee juróom benni at yonent bi ci la ñàkk yaayam bi mu amee juróom ñetti at xale bu am juróom at ñàkk yaay ñàkk baay ñàkk maam amoo mag bu góor amoo rakk bu góor amoo mag bu jigéen amoo rakk bu jigéen benn doom nga kooku bu ko yàlla sàmmee ba def ko yonent ba mission dox kenn ku nekk yàlla pare na ci yow démb tey soog a ñëw kon yàlla yàlla xare ko aljana te am nañu ci ya wallahi am nañu ci yaakaar bu fekkente ni abdu cofeelu yonent bi ci nit dëgg la aljana am na gan tey mm-hmm. bu fekkente ni laax cofeelu nit ñaar ñii laa xam ne vidéo bu ma am ci yonent bi nit bu leen ko njëkk a jot bu ma waxtaanee yonent bi moom mooy njëkk a jot vidéo bi bu ma ko jotee wala ma yónnee ko Balla Gaye vidéo xoolal yàlla li mu def li may wax ni du weeru rajab lañ nekk vidéo bu ma mujjee waxtaane rajab Abdou Saliou mooy bu ma mujjee yonee maire xoolal xoolal kañ laa ko ko yónnee boo defee nii pour wax la sama sama sama xarit la sama confidente la Abdou gis nga xoolal le 17 décembre laa ko mujjee yónnee vidéo bu may wax ci yonent bi weeru rajab ci la génn àdduna te weeru rajab bii laa doon waxtaane ci yonent bi bi muy jëli julli ma yónnee ko déggoo ma de weeru rajab laay waxtaane bi yonent bi di jëli julli allahu akbar ma yónnee ko ko 17 décembre weeru rajab ci la génn àdduna waaye yow tamit ñàkk nga euh, euh, lan moo mën a forger ki nga xamante ni moo di Wally parce que euh, ni mu demee mu ñàkk wasilaam ñàkk ki nga xamante ni moo di papaam ñàkk ki nga xamante ni amee ni yéen a ñuy bàyyi xel euh, ci euh, site internet ñoo fi nekk Dakar euh, di wax inna lillahi wa inna ba nga xamante ni suñu borom dogal na te ndogal li nga xamante ni moom la sunu borom dogal dañu koy nangu soxna jaaga doonoon jenn jigéen doonoon koo xamante ni àdduna wërngal këpp seede woon nañ baaxam waaye seede woon nañ aussi tamit njàmbureem seede woon nañ maanuteem waaye seede nañ aussi tamit bëgg gi nga xamante ni moom la bëggoon rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ma toog ak doomam te yaakaar naa ni euh, euh, moom xam na lu baree bari ci soxna si nga xamante ni moo fi jógee mu di soxna jaaga oustaz Mouhamed Mbaye maa ngi lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la mastaw Abdou Saliou maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar yow itam bu baax a baax a baax di nuyu waa peuple de xam nga nu ñu koy waxatee ndax jaxasoo people 221 mm-hmm. nuyu bu baax a baax a baax ki nga xamante ni moom nga àndanteel moom itam kenn la ci man mm-hmm. tabaarakallaahu ni ko alxuraan di waxee awalam yaraw anna natil arda nanqusuha min atrafiha wallahu yaxkumu laa muaqiba li xukmihi wa huwa sariicul xisaab yàlla buur la boroom la waaye sëñ Mansour Sy Djamil sama sëriñ nee na buur la gën a doon boroom la gën a doon buur yàlla nag bu soxlaa kenn du ni pourquoi wallahu yaxkumu yàlla moom mooy atte laa muaqiba li xukmihi atte yàlla amul pourquoi tey li moom moo neex yàlla ci mission wu kum fi indi woon boole ñaari joxoon leen mission àdduna ñu ñëw kenn matal ko jiitu ki ci des daal di ko fekki euh, bés la boo xamante ni démb la waaye ku xëy tey ci samedi gi boo ko yëgee di nga ni e ci mbetteel boo xamante ni moom ngay am mu nekkoon koo xamante ni nag man sama sama yaay la woon mm-hmm. yaakaar naa ñu bare bare xam nañu loolu aljuma su mu génnee télé këram laay dem mm-hmm. fa laay fréquenté man ak moom ñooy añandoo ajjuma yu bare bare bare bare bare bare bu nu ñëwee li ma gën a neex mooy suñu waxtaan yonent bi rek lay doon sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa déggoon dafa nekkoon jigéen ju discrète Abdou Saliou <laughs> daan na ñëw mu wax ma wax ni ma Mouhamed maa ngi lay wax nangam bii de waaye na yem ci suñu diggante ñun ñaar wallahi yàlla seede na ko mhm. bu ma ñëwee yenn saa yi mu wax ma ci waali ni ma nangam bi ak nangam bi waaye na yem suñu diggante de man ko yow sama yaay nga sama féete nga yenn saa yi ma ñëw mu wax ma benn gént yenn saa yi waali def benn geste mu laaj ma ma ni ko nangam du yàgg tuuti wàlli def loolu rek mu woo ma téléphone même bu dara amee bu dara amee xam nga téléphone moom du fen même bu dara amee loo xamante ni nit ñii ñu ngi ciy mbamb sax dina ni ma xoolal vidéo nangam bi lan nga ci xalaat yaakaar naa yàgg naa la ko woon. Mm-hmm. am na bés boo xamante ni Wally dafa doon def euh, xaw ma soirée la xaw ma am ay jigéen yu dugg solo naka sudul noonu. Mm-hmm. xaw ma ndax seetaanoon ngeen ko. Mm-hmm. mais ci saa si daf ma yónnee vidéo yi ni ma ni ma xoolal réaction Wally ni ma ni ma xoolal kanamam affaire sax daf ko bett yàlla seede na ko yónnee ma vidéo yi. Mhm. ma ne ko li li li waykat ba wayoon moo ci nekk nit ku lay wut jéem-jéem jotu la day xool fi la gën a jege mu jaare fa yàqal la. Mhm. ma ne ko yooyu la rek waaye àdduna moom moo ni mel. Mhm. ndax kuy dund faw ngay dégg. te yonent bi dafa waxoon ni fa inna kullu zi ni'matin maxsuuda borom teraanga boo gis dañ koy iñaane. mais Abdou Saliou ku bëgg yonent bi dem na. ku bi. rangooñam bi mu mujjee génn lii ma lay wax nii. Cheikh Sarr dafa jóge umra